salaamaaleykum salaamaaleykum à tous nos amis internautes de votre site d'information Dakarnet Ouzin vous accompagne ci seen rubrique bés tax tudd jàngat. dañuy def benn jàngat ci son bi nga xamante ni mi ngi tudd metti nii ngaa ko bële ne moom moo ko génnee après son dernier euh, dernier album en date Ngaaka Blindé nous revient cette fois si single bi nga xamante ni mi ngi tudd metti nii alors ñun duñu wax ci euh, bon clip bi parce que du ñuy expert ci wàllu image yooyu mais bon quand même rien à dire à notre niveau rien aussi li ma gën a neex mooy bit bi bon paraît-il benn benn frère la boo xamante ni voilà euh, frère benn benn benn benn benn collègue gu Is la nit ñi sax Is moo ko jàngal benn boobu taxaw ci côté bit bit bi en tout cas rien à dire te bit bi lu si gën a neex mooy dafay tendre ci beneen day maanaam ngaaka day yóotu beneen loxo quoi ci côté international bi son bi c'est assez fun donc mën nga ko fecc si boîte yi mën nga nekk sa oto ba mu yàgg sax nga yox son ba mu naaj donc c'est assez cool quoi pour loolu TikTok bi xam naa bon voilà di ngeen teg mootu bi jël boobu ah alors bu ñu ñëwee ci son bi comme ni ma leen ko waxee dafa bëree ego trip donc ego trip la presque bëriwul euh, amul clash ay pic la am yu ndaw pic yi la ñuy ñëw wax mais bon ni ñu démarré tuuti bu dee rap ngay jaay maay rap bu dee rap ngay jaay ay rap ko déggee comme quoi que ni hip hop laay def man bu dee dof-dof lu yow la bu dee hip hop man ngaa ko blende <laughs> alors je suis le juge quand je parle tout le monde se donc voilà man maay juge bi su may wax ñëppay noppi ego trip la tàgg boppam maay nu gars yi euh, maa këfoon jaari ngay bañ bon mën nañ ko déggee comme quoi que ni voilà xam nga jaari dafa dawoon ñëw génnee livre mën nañ mën nañ jàpp ni ngaa ko bi mu pause dafa nekk dafa nekk di préparer pourquoi pas beneen album donc mu jëw jox ñu jox ñu li nga xamante ne moom mooy single bi ku fi sa jeex rek ngay jekk rek di dul naan da ngay bon dip demi gis ah moom moom loolu pourquoi ma wax ko parce que dip ma waxoon vibe rajo ñu dafa nekk en vague et cetera utiliser moo vac vacances et cetera donc loolu ngaa xam dafa ñëw wax ne ku sa carrière jekki rek càng ngay dul naan da vac <laughs> alors ñu ñëw ci euh, Paco Fall lu mu njool njool buy xool panier bi day teen xam ngeen ne Akhlou Brick Paradise génnoon na fi benn single benn morceau boo xamante ni mu wax Paco Fall Paco Fall son bi tuddoon d'ailleurs son boo xamante ni genre punchline son bu nice quand même bon ñoom dañ doon waxee comme quoi que yóbbu nañu hip hop bi si benn niveau boo ko foog nga gudd loxo fois lu mu njool njool bi xool panier bi ah, foog mu téena ah. <laughs> donc voilà alors ñu ñëw ci beneen euh, pic bi nga xamante ni jox na ko waa Akhlou Brick Paradise ah man maay Ndibaa bi ngay seen finalu FC ah gis ngeen Ndibaa ndibaa bi ndibaa bi gis ngeen Akhlou Brick Paradise moom moo woon son boobu son boobu mi ngi tuddoon d'ailleurs ndibaa bi yàggul ah yàggul même pas même pas sept mois côté yooyu son bu nice Akhlou Brick Paradise clip bu extraordinaire a sori ci ego trip yi tagg sa bopp la punchline bi bari aussi am est-ce que am na ci sax d'ailleurs en tout cas ay pic lañ ci gën a ñun suñu xam-xam bu néew fi xel yam foofu la xel di tàmbalee di dem mais bon le savoir quand même n'est jamais acquis seeni commentaires dinañ xam voilà ku nekk ak ni ñu ko gisee peut man ni ma waxee yow nga ko gisee neneen voilà keneen mën na ko gisee neneen donc hip hop la c'est de guerre yow yaa ma gën a xam yaa may suivre Ngaaka Blindé gis ngeen son bi nice na mais Dip également mi ngi préparé quatrième épisode Dip quinzaine gars yi xaar leen ko Thank you